ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di leen nuyu yéen suñu internet yéen ñuy taamu safoo di suivre li nga xam te ne ni moo seen revue de l'arène chaque jour fii ci Leewtoo TV ci noonu nag dama di ñaanal jàmm bu baax a baax a baax ci koor gi ñu jëm weer bu sell leen ci ñaanal jàmm di ñaan dugg ci ci bisimilah génn ci alhamdulilah di nuyu ñu ma feggul Assane Waalo ak Mbaye Babacar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm Mbaye nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay maa ngi nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV. di leen ñaanal bu baax a baax kooru jàmm ak salaam comme ni nga ko waxee rek ñu dugg ci koor gi ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabil alamina te lépp luñ ci woor yàlla na ko borom bi nangu yàlla na yàlla nangu suñu koor nangu suñuy naafila nangu suñuy sarax ci barki Seydina Mohamed dugg ci ci koor gi ci jàmm génn ci koor gi ci jàmm alhamdulilah. Assane Waalo nuyu naa la. ne Mbacke fay naa la di nuyu mbay Babacar di nuyu internetu comme ni ngeen ko waxee di ñaanal euh, jullit yëpp euh, kooru jàmm. leen fi ñaan wala ñu woor ko yàlla nangul ñu ko euh, ñu def ko muñ nag euh, xiif métti na waaye ñu muñ ko. <laughs> Ndiaye laa yërëm dinañ sonn trop ak fayen ni yërëm naa leen lool. <laughs> non njuufeen yi nga war a yërëm ñi sant Diouf ñoo ragal koor. ñooñu dañ koy dëggu. <laughs> mercredi 14 avril 2021 ci Leewtoo point net lañ jiitalee xibaaru làmb lam ca xam ne nag keroog Leewtoo production mu ngi woon fecca ndàngaan daal dafay tëgg lutte simple bu am am solo kii di Bandi 40 ak Doudou Sané ñoo jël raw gàddu ko Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la le 12 avril ña nga woon fële ca Ndangaan Samb Leewtoo production moo moo fa woon amateur yi tegoon fa 1 million 500 ci poids léger bi nag ki nga xamante ne bii moom mooy Bandi 40 ans moom moo fa daan barrage bu bawut jël ba nga xamante ne bii amul benn werante ci poids lourd yi Doudou Sané. Assane moo fa daan ki nga xamante ne bii mooy Abdou Karim Diouf bu Joal mu mel ni ñoom ñaar keroog wane nañ seen bopp ci tournoi bi. may Babacar ni nga ko waxee noonu la euh, foofu ci nangaan sàmm la xewee woon di dimanche bi wala lundi bi passé euh, Doudou Sané jël euh, poids lourd yi moom nag ki mu daane final moom mooy Abdou Karim Diouf Doudou Sané ginnaaw bi mu daane Abdou Karim Diouf am na 500000 Abdou Karim Diouf mi ñu daane am na 350000 final demi finaliste yi am na 50000 Mouhamed Ndiaye di bandi 40 ans moom moo jël poids léger yi. moom nag mi ngi daane El Hadji Mamadi Sadji ñu gën ko xam ci barrage bu bawut ginnaaw bi mu ko daanee am na benn enveloppe deux cent cinquante mille ki ñu daanee final am na cent cinquante mille demi finaliste léger ku nekk am na vingt cinq mille ñu fàttali ne ndangaan sàmm boobu la xew ja affaire yi doon xewee woon mise bi un million cinq cent la woon Ndeye Fatou Adama Jali ak euh, Ibou Sène ñoom ñoo doon animé gala boobu mbay Babacar moo ngi noonu nag ki suñu làmb lañ jëm journal suñu làmb moom xëyee ci xëtam mu njëkk kii di Jules la pression sur Luc Nicolaï le contrat ki nous lie prend fin seen saison lam xam ne nag xamal ko ki nga xam ne nii mooy roi ba ca parcelle nee na ko biir bëre wasin bëre neex bëre naqari bëre Mbaye Babacar. ayca ki yëkkati yooyu la kàddu moom mooy Jules Balde di mag ci amaa Balde sa lubbu ndaw ba nekk fële ca Pikine moom daal li muy sàkku ci ko laay mooy que nu mu gën a gaawee ñu taxawal li nga xam ne moom mooy combat bi ndax contrat bi bu saison bi jeexee li leen liyee woon ñoom ñaar day daal di jeex Assane. mbay Babacar euh, dëgg la euh, Jules Balde di frère wala di grand frère Ama Balde moom moo yëkkati kàddu yooyu ci suñu làmb moom nag mi ngi fay teg pression ci Ligue Nicolas loolu la journal suñu làmb wax nee na mi ngi koy artu nee na seen combat bi bu passé ren dootuñ ko bëri ndax seen contrat euh, ci saison bi lay jeex moom nag nee na na Ligue Nicolas def tout ba sa combat boobu am euh, si saison bi mi ngi fay également di sànni xeer Modou Lo nee ne bu bëggee dina bëre bu biiree dina bëre bu bu wasinee également dina bëre quel que soit alpha Modou Lo moom dina sëgg ren. ba noonu nag waa Pikine dañoo pare MMA lañ jëm ki di Reug ci quatrième combat ba muy amee feenee ca MMA le 29 lay dooni incha allah ci weeru avril bi mbay Babacar. Euh, Reug Reug gannaaw ba mu jógee ci Patrick Simi Simis Patrick Simi. nga xamante ne bii foofu la ko daanee ca Singapour ma ngay dëgmal li nga xamante ne bii mooy ñeenteelu combat am ñett ñetti combat ñetti victoire dëgmal ñeenteelu combat am incha allah bu ci yàlla àndee le 29 avril Assane dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi mu daanee Patrick Schmidt le 8 avril bi passé la woon foofa ca Singapour rëg-rëg mi ngi jëm ci quatrième combat am ci MMA quatrième combat bi nag mi ngi am le 29 avril bi di ñëw ki ma dajeek moom mooy Kirill euh, Grichenko ki nag benn biélorusse la euh, combat bi mi ngi amaat ci Singapour ci benn stade bu naan Lindor Stadium euh, comme ni nga ko waxee nag rëg-rëg amagum na 3 victoires ndax daane na Sofiane Boukissou loolu le 14 décembre 2019 la woon daanee na Pierre Galani le 22 janvier 2021 euh, Patrick Chumit moo mujj le 8 avril 2021 bi passé. ma ngi noonu nag 4 la ñuy delluwaat ci ginnaaw Modou Anta contre ki nga xam ne mooy Diène Kairé bañ ko sanctionné nag lañ ko dagg mooy. 600 660 000 francs lañ ko dagg Mbaye Babacar. gannaaw ba mu jàkkaarloog Modou Anta ba bëree ba pare li nga xamante ne bii mooy li ko réglement bi li mu sartoo woon ak réglement bi daf koo desee sàmm da ko daa daa des da koo desee sàmm looloo waral ay daan dal ci kawam Assane ñu daal di dagg comp ci xaalisam lu tolloo ak téeméeri junné ak fanweer ak ñaar. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi ñu xamee li ñu dagg Diène Kairé moom ñu ngi ko daggoon deux cent soixante dix mille Eumeu Sène six cent dix mille euh, Lac euh, nag xam na Diène Kairé wala kii di Modou Anta ñaata lañ ko dagg ndax moom euh, lundi dimanche bi passé jëliwul woon reliquat am daf ko fa bàyyi woon tey nag xam na ñaata la journal suñu làmb nee ne dagg nañ ko six cent soixante mille loolu nag mm, ci surplus accompagnant maanaam li ñu ko waxoon accompagnant yi ñu ko permettre woon mu dugal ko mmh. loolu lépp lan boole euh, bi ñu ko xaymaa mu nekk six cent soixante mille. ñi ñi mu waroon a àndal nombre bi bi ko mayoon. dafa andi lu ëpp loolu. ba pare heure bi ñu ko waxoon mu ñëw dafa weesu heure boobu. exactement Mbaye moo waral ñu dagg ko. ma ngi noonu nag ci noonu nag kii di Zal mbay lam ca xam ne nag mooy sanction yooyu. rafetlu ko te mu ngi duut baaraam waa CNG mbay Zal mbay moom mooy manager Modou ànd Assane li muy li muy kàddu yëm yëkkati mooy mi ngi ñaawlu dagg bi nga xamante ne bii dagg nañ xaalisu mbërëm euh, muy Modou Anta. dëgg la Mbaye Babacar ba di nekk manageru Modou Anta nee na nag moom li mu ñaawlu mooy dagg yi dagg mbërëm nee na ndax surplus d'accompagnant yi rek dagg nañ ko cent vingt mille Euh, maanaam lim ëppale ci nombre bi nu ko permettre loolu rek euh, CNG dagg na ci mbërëm mii di cent vingt mille francs en plus euh, assurance yi nee ne dagg nañ ko soixante mille alors que assurance yi mbër yi ñoom duñ ci profité wu da ngay bëre te assurance bi maanaam daanaka amul lu leen jariñ nee ne li muy proposé moom mooy ñu def benn anni assurance annuelle assurance boo xam ne boo xasee dagg at mi dootoo dagaat assurance loolu daal lay sàkku ci waa CNG mais ñaawlu na trop dagg-dagg yi mbërëm ma nga doon nag arène national lañ jëm ak yàq yàqte ji fa xale doon def lii ji bisu samedi 10 ak dimanche 11 mbëri mbëri seen supporter yi ku ci ñàkk seen supporter yàq ku ci am ndam sa supporter yàq loolu nag CNG jël na ci ay décision daal di leen sanctionné te ñëpp rafetlu nañ ko Mbaye Babacar. muy la nga xamante ne bii képp kuy yëngu ci làmb wala képp kuy sénégalais boo gisee image bi yaa ngi koy ñaawlu mooy li amoon keroog arène national keroog samedi gannaaw ba Cheikh Super Jamono doon bëree ak capitaine Dina euh, supporters yi di buddi saisi di ko sànni. arène national bijou la ba nga xamante ne bii euh, gouvernement Sénégal moom moo ko jagleel ak lu làmb ñu war koo sàmm nag ndax. soxla woon nañ ko trop bu ñu daan tëgg làmb dañ doon dem ci stade yi doon di xëccoo ak football bi ak ñi nga xamante ne bi ñoo doon yëngu ci yeneen wàllu tàggat yaram gannaaw bu ñu demee bu am suñu arène bopp Assane li ñu war mooy ñu sàmmal ko suñu bopp bu baax a baax ba tax na kii di Doudou Diagne Diecko yëkkati na ay kàddu di ko ñaaw di ñaawlu la fa am barki dem dëgg la Mbaye Babacar ñu fàttali ne yàq yàqu yooyu am na samedi waaye également am na dimanche ñaari jours la am looloo tax nag du jànjee ko comme ni nga ko waxee journal suñu làmb jox ko kàddu mu yëkkati ji ay euh, kàddu yoo xam ne nii yoo xam ne nii yoo xam kàddu yoo xam ne nii dina euh, naxari na ko lool saccage yi fa amoon mhm. du jànjee ko nag li mu xam ne nee na ñi def loolu dañ leen a war a identifier ba pare sanctionné leen bu ñëpp xam ne ñi sanctionné leen pour que prochainement kenn dootul am fitu dem euh, arène national di yàq siège yi wala ngay def lu ñaaw foofu dëgg la Assane ci noonu nag Matar Ba ministre des sports moom daa mer ba futu lam ci xam xamle nag mooy dina jël ay décision yu drastique bu jaree sax ñu tëj arène nationale dinañ ko tëj mbay loolu la ministre Matar Ba ministre des moom mi nga xamante ne bii moo wàllu tàggat yaram ci biir réew mi ku ci nekk xam na ne yëkkati nag àddoom ñaawlu ko moom tamit ba pare boole kook mer nag ndax li am keroog kenn rafetlu wu ko nee na li am ni su fekkee amati na su stade bi aajowoo ñu tëj ko sax dinañ ko tëj ba jël ci ay dispositions yu mat sëkk dëgg la Mbaye Babacar mer ba futul la Matar Ba def moom muy ministre des sports mi nga xam ne ni moom moo gàlloo wàllum tàgg tàggat yaram fii ci Sénégal. Uh-huh. moom nag euh, après so euh, saccage yooyu génn na wax nee ne euh, bu jaree ñu ferme arène bi sax dinañ ko ferme ndax lii moom dootu état bi dootu ko nangu muy amaat nee na nag dinañ ci yël ay matukaay yoo xam ne nii. Euh, dinañ leen sanctionné ñi ko def ba bu boo lëgee kenn deetul jéem a wala ngay xalaat sax di dem stade di ko yàq ko ku ko xalaat ku nekk sa xel dem ci sanction yi exactement mais man Assane li ma gisoon mooy mbër mbër mbër bu àndee say supporter boo bu bu supporter yi yàqee am bu amee lu ñu laal ci stade bi rek ñu sanctionné supporter yi ba pare yow sanctionné la dina waral képp kuy àndeeti say supporter ci ci stade bi avant ngay ñëw di nga leen sensibiliser bu baax a baax nga ñaax bu baax nga leen ñaax waaw ndax man gisuma loolu sax nécessaire ah. maa yaakaar ne ku merket mooy mooy wane na xaram waaye da dangay daan ah. nga yàq sa mbër daanu nga yàq léegi ñun kon fan lañ jëm doy na waar nañ ci wax jug ci balaa muy jëm ci kanam ceeg bataar kii lañ jëm professeur sa maane combat ak Sa Ndiambour taxaw na ki ko taxawal nag mooy Ouzin production Mbaye Babacar professeur Mané nekk fële ca écurie Grand Yoff mbooloo di xale ba nga xamante ne bii xale bu mat a bàyyi xel la euh, toj Jurbel nag avant muy ñëw fi nga xamante ne bii moom mooy Dakar wala toj Dakar toj Jurbel noonu laa ko mën a waxee professeur Mané moo war a jàkkaarloog Sa Ndiambour Ouzin Production moo taxawal loolu Assane. dëgg la Mbaye Babacar professeur Mané nekk ci écurie Grand Yoff Sa Ndiambour nekk ci écurie. bàyyi ci xel comme ni nga ko waxee muy nekk ñaari jeunes euh, lutteurs yoo xam ne ni am naan am naan confiance wala am naan euh, yaakaar ci ñoom ñu jëm ci kanam combat boobu nag euh, kii di Ousin production moom moo ko tëgal fi mu ko heure bu mu ko bëgg a tëgg moom mooy mois de juin wala juillet ñaari date yi daal la xool wala ñaari weer yi la envisager pour mën a tenir combat bi nii mooy Babacar. incha allah. ca doonu nag góorandooy président des amateurs des jeunes amateurs de lutte du Sénégal lam xam ne ci journal bi nag mooy Luc Nicolaï combat royal bi mu taxaw. bi mu taxawal mooy mbégte li nga xam te ne amateur yi ñëpp moom lañ yàqamte woon di kon doon ko xaar mu taxawal ko kon nag defal na leen liñ bëgg Mbaye Babacar. Euh, Gora Ndoye mooy yëkkati yooyu la kàddu moom mooy président Azal euh, nee na lig ni ko laay li amateur yi doon gént. doon ko xalaat saa su ne mooy diggante Modou ak Ama Baldé taxawal na ko mais na fexe combat bi am dat ñoom ñaar ñu bëree ku ci nekk mën a nekk dellu ci leneen. dëgg la Mbaye Babacar kër Ndoye moom mooy président AJAL AJAL mooy euh, association des jeunes amateurs de lutte du Sénégal. Ah. moom nag euh, dafa yëkkati kàddu nee ne Luc Nicolaï combat bi mu tëgg war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo dafa euh, concrétiser rêve amateur yi ndax amateur yëpp dañ doon rêvé. Ama Baldé ak moduloo daje moom mu ñëw tëgg ko kon euh, loolu lu def lu dul saluer wax na également ci combat bi doxoon ci diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers le 4 avril bi passé nee ne na Lac de Guiers ak Eumeu seen xam ne ñoom amateurs yi mer nan lool jëmale ci ñoom nee ne jour boobu da gis nañ lépp sauf combat. gis nañ lépp sauf bëre. sox bëri ay layal ay la ay lal. ay layam layam ay <laughs> ay lewaatoo rek lañ fa gis gisuñu fa dara. mu ngi noonu nag record lañ jëm moom ba léegi dafa desandi ci ki nga xam ne mooy ministre bi ak maire ba maire ba futu ci ñoon yàqee stade ba nee na bu jëree sax ñu tëj bi dinañ ko tëj mbay. ministre Matar Ba ministre des sports moo dellusiwaat ci record euh, di wonewaat naqaram ba léegi ci yàqu-yàqu yooyu nga xamante ne bii moom moo amoon fële ca arène nationale moom nee li amoon ñi ngi ñaan ñi ngi ñaan bu mu amati te amateurs yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax bëgguñu tëj stade bi te li bu amatee stade bi daa arène bi daañu ko tëj. dëgg la Mbaye Babacar euh, Matar Ba fooweewul wala caaxaanewul li am nee ne euh, lu sérieux la euh, mbir moo xam ne ni mu mi topp la te bu fi amaatee wala sax avant mu fi amaat bu ko jaree daal nee na dinañ tëj arène bi. Euh, pour rien que pour éviter loolu waaye euh, journal bi de record ñëwaat na nag nee na nee après saccage yooyu juróomi mbër identifié nañ leen ti te dina leen aj deux ans euh, un an yoo xam ne ni dañ koy toog duñ ko mën a bëre oh, wallaay mooy li ma doon wax sànq xam nga xam nga xam nga nit booy ànd ak moom yaakaar ne da nga koy defaral mm-hmm. fekk na yaa ngi koy yàqal mm-hmm. ànd ak mbër ba pare ñu aj ko xam nga ne loolu dara jaru ko lu ñaaw la ñi ànd ak mbëri nañu ànd nañu dellu si waat seen xel bu baax waaw mais mbëri tamit am nañ ci benn role yow mbëri yow yaay dem ci làmb ji yow yaay bëre bu ñuy sanctionné yow la ñuy sanctionné kenn du sanctionné supporter par du leen xàmmee mënuñu leen identifier mbër mi la xàmmee moom la ñuy sanctionné donc jar na booy eh, dem arène ba nga woo say supporter uh-huh. nga sensibiliser leen uh-huh. wax leen eh, lan moo lan moo leen fa yóbbu booy uh-huh. bëre ji ñett rek nga mën a am mën nga am victoire mën nga am défaite waaye mën am match nul bu am rek supporter yi war nañ ko mën a supporter ànd ak moom ñibbi accompagner seen mbër ci résultat bi mu yóbbaale. dëgg laa sax. lépp ci yar ak teggin la rek mbay yar ak teggin. wallaay defaraat jikko yi defaraat jikko yi parce que niti làmb yi dafa am fu ñu leen dëkkal ndey mbàkki mhm. nitu làmb yi dafa am fu ñu leen dëkkal foofu nag war nañ koo moytu. ñoo ande delloo si waat xel yi bu baax a baax a baax a baax ndax làmb suñu cosaan la suñu aada la ñoo ko moomal suñu bopp mi ngi noonu. doon dem ci stade di toog fu fu fu fu fu wow ñu wutal la siège ya nga xam ne da ngay toog en l'aise kenn du la gêner mhm. war nga koo sàmm bu baax a baax a baax. nañ sàmmaat defaraat jikko yi mu ngi noonu Assane Waalo maa ngi lay jaajëfal bu baax Mbaye Babacar jaajëfal naa la bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës si bopp xibaar yi ci noonu nag damay tàggatoo yéen rek tàggatoo bu dul bu jeex lañ koy xool ba amul àpp. Mm-hmm. tàggatoo bu dul tàqalikoo si tàggatoo bu dul bu dul tàqalikoo damay mm-hmm. nuyu borom kër gi Pape Thialis Faye di ko ñaanal jàmm ju baree bari ko ñaanal kooru jàmm naka noonu nag yéen suñu internet di leen nuyu leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen mbay looy tàggatoo bi jaajëfal ñëpp jox leen dig daje suba ak jàmm ci beneen revue de l'arène yàlla nañu yàlla defal kooru jàmm ak salaam asan Euh, Ndeye Mbacke bala maa damay invité CNG ñu jël ci ay mesures yu drastiques sanction yi buñ ko buñ ko wala saccage yi buñ ko sàggane nañ ci jël sanction yoo xam ne ni euh, nit ñëpp dinañ xam ne ñii sanctionné leen sanction bu métti boo xam ne ni euh, amateur yi wala supporters yu demati arène dinañ fàttali seen bopp ne ni am na ñu yàqoon sanctionné leen ba ñëpp xam ko ci loolu laay tàggatoo di remercier waa Linguère remercier internet Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom di leen jox rendez-vous suba ak allah. baax. Baba kontaan naa ci yow trop trop trop trop Kébé <laughs> moomoo maa ne sama chauffeur bi loo dawrul baaxul maa ngi lay bëggee bu baax a baax Aïda Matu waa kër gi ñëpp ah Ousmane Fall Ousmane Diallo autant pour moi kontaan naa ci yow trop Fama jaajëfal leen di leen ñaanal kooru jàmm ak salaam di ko sàkku ci yéen ba ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.